Guru Bhagat Nami Guru Hare ثابت زمانينا بل أحلى ربي وآدم بين الماء والطين ربي وآدم بين الماء والطين ربي وآدم بين الماء والطين النبي وآدم بين الماء والطين خليفة الخير والمختار من مطر سر السريرة سلطان الصلاة خليفة الخير من نظر سر صغيرة سلطان الصلاة أبو الفيض الذي بارت آياته كلها عقل ذاك أبو العباد أبو الخير الذي بارت آياته كل عقل ذاك يغنيني قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدمه بين الماء والطين

ميقع الجنود وحكم الكل إلى الحين إن القصيدة هذه من مريد أبي الفيض الإلهي أبي بكر أخي الهون صلى الإله على المحمود سيدنا والآل والصحب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 رب العالمين ربنا بنعمته الألوان الله نعمته الرحمن الرحيم بعباده في القبور بالروح والريحان على والإجمال ملك يوم الدين يحكم على عباده بالعدل والإحسان على وجود لزاني من زاده إياك نعبد نخصك بالعبادة في كل وقت وأوان أنا وعين وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على الإيمان سيئا والمتكبرين الضال صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان ورضاهم بالعقيقة هالبا غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الكفر والطغيان والمالي آمين آمين إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان إلى الله نشكو ما لنا من مطالبه هو المنعم المعطي جميع الرغائب فمن شاءه يعطيه ما شاء تفضلا عليه فإن الله مولي المواهب عبيدك مولانا لدى الباب خضعا فيسر لهم ربي جميع المآرب لك الحمد إنا شاكرون جميع ما علينا به أنعمت من كل جانب علينا فتب يا غافر الذنب رحمة علينا فتب يا غافر الذنب رحمة علينا فتب يا غافر الذنب رحمة وقابل التوب أنت من كل تائب أمتنا على حب الرسول وآله والشيخ أبي العباس مهدي المراتب أزقنا شراب الأنس واملأ قلوبنا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 sant yàlla subhanahu wa taala ci jotaay bu tëdd bii mu ñu mayati di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama mi nga xam ni lu ñu yàlla may ci barkeem lañu ko may ndax wér na ni wa innahu iz arada allahu nashatana abana min nuurihi نور النبي العالمين صلى الله عليه وسلم ني يكتي نيو اك زياره اك نوكل دي تي ووتو سما سيرين سيرين بابك سي عبد العزيز موم ووتو اي كليفام يير لا كو دالتي خليفه با سيد ابو بكر سي محمد المنصور سيرين سيد احمد سي بو سيرين بابكر سيرين باب مالك بو سيرين بابكر سي بيتي الشيخ الحاج مالك والحاج عبد العزيز الدباغ عندي هو تمام السيد الحاج مالك ياب وعي الدين ديب نبو تمام سرين توبا ياب نبو تمام الإمام ياب نبو تمام عبد القادر الجيلاني أك مولم كي وقت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سرين بانجي لينيو دي لزيارة إن دوكن ياب كتي ويروي ولا كورجي ñaar yëpp waaw ndax koor gee tax woor wi koor gee tax woor gi su weer bi ñëwul woon kenn du woor ok waaye su weer bi ñëwee tamit te kenn wóorul du am sens kon di ndokkeel ñëpp ci ñaar yëpp dugg nañ ceeg bismillahi rahman rahim yàlla nañ ko àggale ak alhamdu lillahi rabbil alamin ni xaj Mansour mboolem ibadat yi bu ñu demee aljana yëpp ay takk ba mu des zikar aljana amul julli li ci gën a neex aljana amul koor waaye daaw góor la ca dàq la ca dàq mooy li dàqal góor ñi yëpp mooy aljana amul joxe dépense jàmm yàlla yëpp dafay dagg ba mu des zikar gis nga gaa yi ngi téye seen kurus dañuy zikar ba aljana xam nga lu ñuy zikar دعويهم فيها سبحانك سبحانك اللهم قسنا أدنا لو صعلا أنا سبحانك اللهم لك من سبحانك الله خلال الله لك دعويهم فيها تبين الجنة سبحانك اللهم ويبن كون دني فوقني وقت سبحان الله وبحمده تعال جنة بدن ذكر بموي وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ñaari baat yooyu moom du dakk ca biir aljanna insha allahu taala kon ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel ci koor gi di yàlla yàlla nañ yàlla nangul koor nag neexut wala neex na ah Mansour moom koor neex na yéen ay nit yàlla ngeen sama classe gi moom koor neexul ci ñoom man moom du ma d'accord ma bërki dee mu ndeysaan xalifa bi dama dem ñuy waxtaan ma ne ko naka koor gi xanaa ren moom sedd na mun ma koor daal koor la rek mata tax daaw ni toy muni ma kor gu daaw gaag gu ren gaag gu sedd ge gu tàng gi kor kor way xam nga li tax xaj Mansour koor neexut baxna nak d'accord na ni kor baxna mais problème bi moy kor neexut parce que dafa jafe lélé nga xëy yow sa keur wala bay daaw gor xëy sa keur suba ba 23h ci guddi do añ koku yombuna na problème bi moy sa beut dafa wara wor sa lamine dafa wara wor sa nopp dafa war a woor sa biir ni mu wooree ci bëccëg gi fexeel ba booy dog na nga dogee lu lew tànk bi dafa war a woor mboolem jëmm ji loolu moo tax koor métti waaye bu doon xëy ñàkk lekk ñàkk naan kooku ñëpp mën nañ ko moo tax yàlla daan wax ni nee na koor moom asawmu lii mboolem jàmm yàlla yi boo ci def malaayika moo lay fay waaye nee na sama diggante ak sama jàmm bi woor ba ngoon jot yoonu kenn ñëwu ca man yàlla maa koy fayal sama bopp moo tax yeneen bi ni aji woor ji am na ñaari mbégte mbégte mu njëkk mi mooy bu dogee xam nga li koor di neex yëpp bu dog ko dàq waaw moo tax gars di wax faaxi ndog moom sëgër rek moo tax man Dakar lu mu guddi guddi ila Tiwaawan te foog ngeen di ma comprendre man Tiwaawan ila Tiwaawan mu ko man kaw kaw laa xaw ma Dakaaru dara damay wax gars yi man leen oto bi tànt bi génn tànt bi oto bi Tiwaawan su ko defee yeneen bi ni aji woor ji am na ñaari mbégte moy bu toge ni mi bége waye mbekté ma dàq nag mooy ëllëg taseeg yàlla subhanahu wa taala mu ni ko àjjanaa yàlla yàlla defal ñuko ko nga def kuni nit bu jugee aljana bu jugee al mukarram waye dafa jigee aljanna nag màkka na aljana de wa ma la ko wax nit bu jugee al mukarram ñen fukki guddi ñen fukki guddi bu ñaané mu nangu Mansour d'accord waaw man d'accorduma xam nga lu wér aj gu yàlla nangu sa giiru dund boo ne allahuma yàlla nangu yeneen bi moo ko garanti alxajjul mabruur yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni alxajjul mabruur laysa lahu aljaza illa aljanna kon yàlla yàlla nangul ñu ñu ngi nuyu imam di ko ziyaara bu baax ni ko ba Cheikh waxe di nuyu waa jàkka ji yépp nag di la ñaanal yàlla yàlla yàlla barkeel di nuyu Cheikh Ibrahima Kébé bu baax moom it di ko ñaanal yàlla taxawaay bi mu taxawu soxna Xadi ba ay mbokkam di ko seede yàlla na la ci yàlla defal ndam Seydina Mohamed daan na wax ni góor gu tedd rek te baax mooy teral jigéen waaye gu bon rek te yées mooy toroxal jigéen kon ni nga taxawoo soxna Xadi yàlla na yàlla taxawoo la noonu yal na may la fan gudd wir moom may len wér yak mom ndax ñaar ñi mom ku ci sama rom febal yeen ñaar ñepp yalla na ngeen wir yeen ñaar ñepp yalla na ngeen guddu fan yeen ñaar ñepp yalla na ngeen am xaalis yalla bu ngeen bank parce que bu xadi banque nga bank so banque xadi bank so bëggee dem tiawante am mo pass xadi febal su xadi bëggee dem tiawante amul pass nga way benn so da fay xol jabar ji ba yàgg jabar jay xol jëkkër ji di ko ba yàgg rek jabar ji ni tekkat waa ji ni ko mu yéen looy ree mu ko damaa xam ni maa yow yëpp ay dem aljanna mu ne ko ndax lan mu ni ko yàlla ñaar ñi mu ñaar ñi mu gërëm moo di ashakir wasaabir santkat ak muñkat mu ni ko ci naka mu ni ko damaa xam ne yow sama jëkkër sa ñaawaay bi kenn bëggu la ma bëgg la di di muñ sa ñaawaay bi ndax jaamu yàlla xam nga ni moos yow foo yaa ngi sant kon di nga dem aljanna mu ne ko waa yow nag mu ne ko man muñ kat sa ñaawaay bi ma di ko muñ rek yow yaa ngi sant maa ngi muñ ñun ñaan ñëpp a dem aljanna yi incha allahu taala moo tax seen andi bi yal na ko yàlla téye ba aljanna moo tax gisoo jigéen góor bu génne àddina da koy ñaanal yàlla yàlla may ko gëneen kër bu gën kër gi mu nekkee woon ganeen njaboot yeneen i mbokk yeneen i jabar waaye bu dee jigéen doo ko ñaanal jëkkër di nga ko ñaanal lépp ba mu des yàlla yàlla na ko may beneen jëkkër ndax amaana jigéen bu sëyam sellee ci àddina jëkkëram ni mu nekkee woon ak moom sell ëllëg bu demee àjjana yàlla boolewaat leen ndax góor mën naa ay jabar yu bari waaye jigéen benn jëkkër la mën a am moo tax góor gi ñaanal ko mu am yeneen soxna yu gën sax yi mu nekkee woon ci àddina waaye bu dee jigéen ñaanal ko lépp ba mu des jëkkër ndax dañ naan bu Ibrahima ñëwee rek moo xari ñu àndaat ci àjjana incha yàlla yeex nag ah yàlla yeex àjjana moom lu mu neex neex neex bàyyi daw góor nañ dund ba ci bay bàyyi ma saaxo yal na yàlla yokku leeram mu ne yàlla bu ni ma nga dee tey tey tey demal jana tey tey tey wala ma bàyyi la fi ngay dund boo boo demee boo ëllëgee nga débrouiller ñaari bo ci jël mané ko yalla les mois débrouiller bàyyi ma rek ma débrouiller suma ñëwé na fan yu gudd te ma tabarak allah su ko défé ñi ngi ziyara bu bax Ibrahima di ziyara ba Cheikh Tidiane Kébé di ko ñaanal yàlla momit it ni ko xaj daa góor waxee taxawaayu daayira bi yëpp ma sha allah bu ñëwé ba fii. itteem ju kawe la yàlla na ko yàlla fay di ziyaare mboolem kilifa yi ci kaw yëpp nag bàyyiwuma kenn di nuyu alxaaji Mansour bu baax a baax mbaay di ko ñaanal yàlla alxaaji Mansour al Mansour inda allah yàlla yàlla barkeel di ñaanal yàlla njabootu baay Mame Moussa Ali Mbaye yëpp yàlla na yàlla defal la ndam ci ñoom yàlla na yàlla may la fonu gudd yàlla may la wér defal ko sarak di di xaaji taw góor tabaarakallahu taw góor moom macha allah nit ku baax la nit ku xàmmee la tabarakallah xam nga àddina moom ci problème bi yëpp mooy nit ñi di leen sonal mooy ñàkk a xàmmee waaye xaj daa góor ku xàmmee la yàlla na yàlla soxna Xadi man maa ngi nii kon mën nuyuwaat Ibrahima Ibrahima maa ngi lay siyaar kenn fekkee ci nuyoo bi rek ah Ibrahima maa ngi lay siyaar bu baax kenn jërëjëf Kébé jërëjëf jërëjëf su ko defee yéen ci nuyoo bi Ibrahima Kébé te Ibrahima kat moom fexe na ba sant Kébé rek xadi Kébé Ibrahima Kébé Ibrahima Kébé Mbaye yal na yàlla barkeel jërëjëf jërëjëf jërëjëf su ko defee bu ñu nuyoo xaaj daaw góor ak xaaj Mansour nuyu nañ takkar Seydina Mohamed yëpp ba ci sunu mbokk yi jóge kër maam Serigne Touba amoon na la ma bëggoon nañu fekke ko xam naa dem nañu وعيني في نك دالن قلت لي إن شاء الله تعالى دنيا صحن خدي أنبالم دجن يمكو سقل نب دلني أنا يلا يلا يلا, يلا بكر حد بام جاي مان زيارة بابا دنيا واقن بيب وعي دنيا دائرة المتمسكين بسنة خير العالمين دائرة بابا نب كلن بوم منصور أمول تجانا أمول مول المتمسكون بسنتي كوكو نيب تي لاني بوك ييغني ادنا بن سيرين مو في محمد مام ريك لا يالا جوخني وان تطيعوه تهتدوا سما متى تواوني وليس نفع على حب بلا عمل يالا ني وان تطيعوه تهتدوا منصور وتابعا ماغي نيو وتابعا سنه المختار تغتنمي لما مودا وخ با باري بغا تخاو ديك يد ديك غاني كليفه غو خامتاني مو لا گنتي والي بون كو توبي سنغال داي تاك بون لين تي فك كوتي وخ نغا يالا تخ كوتي واخ نغا واخ غير جيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لول لا كليفاغي واخ واخو لامن لو ген كادر قال الله قال رسول الله كوتي ام نك لو ريوان ديكي دما غا واخ يالله سبحانه وتعالى نان يار نجابوت كي مبوكي نان يار نجابوت كي بو باخ ني خام لي ني واخ خام كي ني واخال كان لا خام في ني واخي فان لا سي تريز امبورطون مي سنغال كوم نيه غا بور لا تكت تكت بوكو ما بيتالي ما بيتالي يالله يالله ديفال توفيق waye serigne bobu moo fi nek muy Seydina Muhammad xolal ñun ñi dem Makka nit taxaw ni fa ngeen demone du foofa xolal ñi wax ja dem nit taxaw ni fa ngeen jëm du foofa xana du Makka ko yàlla waxon Seydina ibrahim wa azin fi nnaasi bil hajj yatuuka rijalan wa ala kulli daamirin yatina min kulli fajjin amiq li yashhadu li yashhadu gaay manafia lakum ni du foofa xanaa du kaaba ga yàlla waxoon yonte ibrahima wa iz yarfau ibrahimu alqawaida min albayti wa ismailu rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alalim gars yi ni du foofu xanaa du kaaba ga Seydi El Hadji Malick demoon xanaa du kaaba ga sun maam Fallou Mbacké demoon xanaa du kaaba ga maam Ibrahima Niass demoon xanaa du kaaba ga maam Cheikh Mbacké Baye Abdou Aziz Dabakh demoon xanaa du kaaba ga Alhaji Mansour Toug Sukkoon gaay nit taxaw ni du fofu man xamna fan la nit taxaw ŋaññ sayyidina muhammad kilifa taxaw weddi ko ne pour lan mu koy wax te di julit yëf yi du jëmul jëmul ci ben tariqa ki ko wax tariqa bu mu bokk ni ko waxo dëgg fe nak buñu bëgg buñu bëggé Sénégal jaar yoon nañu bàyyi bu dara jógee ñu bëgg ko jëmé ci ben kër يلا يلا دفن التوفيق يجوني حاج منصور يلا دوجل بن جمو دو ما دما سفر اك لو مانا ديف ما واخ لاكو تاي لو مانا ديف جمو نيت لا واخ جمو نيت جمو جي دوجو سفر بندل محمد بوكو تخاولي منصور مباي تخاو ميم جمو جي لا سبب بي موي ميمو سيدنا محمد دمن بي موي حادم ديال رسول الله نديغلي موي غنن ميمغي تانكي موي ديلكي بو يالا ديمي باي مبوغل نيت امام لو امام لو بو يالا امام لو بسم الله خولال بو يالا ديمي باي دوغل نيت سفر داف كوي ديفورمي ديكو ديفورمي با دوتو امي ملوكانو محمد مو دوكو تابال سفر يالا نتي يالا موسل لول ييب بو يالا داف كو احتراما لرسول الله باتي بوي دوخ خولال سا نياري تانكي sa benn tànk bee ngi jéggee laa ilaha illa allah boo yëgee ak boo yëgul deuxième bi di wax muhammadu rasulullah gauche bi droite bi laa ilaha illa allah càmmañ bi di ko feeloo muhammadu rasulullah ñun bu ñu fontoo yonente bi yonente bi xamuñu mooy kan gis nga ba ci julli ku santaane julli waaye moom du julli mais position wu turu muhammad ngay jullee soo bindee miimu muhammad xëcc ko day ànd ak ab tànk moy taxaway bi haagi dafa lonk mooy rukoo bi mim gi dafa rom moy sujjóot bi xolal del gi toogaay bi sallallahu alayhi wa sallam wala yuxaasabu ljalilu samadu man ismuhu muhammadun wa ahmadu wa shaqqa lahu min ismihi li fadul arshi mahmud wa hadha muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yengani nga ni Adja lay ziar yengani bodé jigen melni dee Kébé sa borom keur سمام عبد نير ديال طق سيدنا محمد مو بقي خالص ديال طق سيدنا محمد لب لو بغ تي اوبيكو تي والي ادينا ولا nga بغ كو تي اوبيكو سا ديغنتك سا بروم ولا nga بغ كو تي اوبيكو سا ديغنتك ساي مبوك ولا nga بغ كو تي اوبيكو سا ديغنتك رسول الله غورغي نين ديال طق سيدنا محمد فوتو بيشتغل فاشتغل به تمناني يا عبد ما عبد قادر fabtani bihi fashtaghil ma ne ko fashtaghil bihi it mën naa ne fashtaghil bihi fashtaghil ngay wax booy way waaye booy firi fashtaghil soxla woon bihi ci tagg Seydina Muhammad yaa abdu maalika qaadiran yaa abdu yow jaam bu mu mën a doon ndax maqaamul abdi garaat bi yàlla di jox nit ba ca ëpp doole mooy garaatu jaam jaam bu mu mën a doon nga dund ci àddina fii ak yaa ngi am kattan fii ak yaa ngi koy man fii ak yaa ngi koy tal del tagg Seydina Muhammad محمد رسول الله min aadami zuhuri jërëjëf sama abdu nee na mboolem doomu aadama lu muy denc di ko xaare ëllëg yowmal qiyaama la ca gën mooy tagg Seydina Muhammad bi ñuy tagg rasulillahi tagg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahmad uddati ahmada mooy ki yàlla sant àddina ak àllaaxira uddati mooy sama ndëgër laay man Abdoul Aziz Dabakh mahabbatuhu fil qalbi kannaqbi fi sadri mahabbatuhu te ci lay waxtaan pourtant de mahabbatuhu bëgg Seydina Mouhamed fil qalbi ci xol dafa mel ni kan naqsi fi saxri fekk doj wu tooy xepp bu ñuy doog mool nga bind ca fi yëg miir ba tojul bind ba du raaf noonu la bëgg Seydina Mouhamed mel ci xol kon bu ñu tuddee rasulillahi foog xol yëpp yëngutu لذلك ما يوقتي محبته في القلب كالنقص في الصخر بني تودي سيدنا محمد تي تودي نوا خامني جادول فكو جام يالا يي سن خول يغوت بن غور نك تي فاس ديك ساو دان واخ ني دينا كو ديف تا كين دوكو واخ باركي غوتي باركي غوتي مام كاي داي مباخ داي دا غاي ديف سافان ني كو واخ نغا ديك كو مونا خاري لا باسكو يا كو واخ واي واخ لولا نيه تي سيدنا محمد با نوبي غاني كين دو واخ بارك لي قلت ناخ محبه في القلب كان نقص في الصقر مودم بتي بير موني مبولم غوري اللي به نال ما نال الرجال مراتبا من الملك العلام جلت عن الحصر كن يلا يلا فيل صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشة ما خمني جيجن لون دي مانا جانجل ملني أجا جان مقلول تيكي بارو سيدنا محمد xam nga keppaaru rasulillahi ni te nekkoon wuutewul ak ñi fekkee keppaaru bay abdul Aziz Dabakh genn keppaar gi la jigéen ña fa nekkoon it wuutewul ak jigéen ñi nekkoon ci keppaaru góor gi benn la fi yëg ña ngay roy rasulillahi ñoom góor ña jigéen ña di roy Khadija ak Aïcha même tabarakallahu cër bi lay doon Aïcha moomu nag nga xam ne Seydina Mohamed daan na wax ni ku ci bëgg a jàngati sa genn wàllu diine demal Aïcha jàngal la ko Aïcha moo ni képp ku bëgg yàlla ndax ñun bëgg nañu yàlla gaay ay wax alaaji Mansour Mansour de su bëggul yàlla xam nga ni yéeme na yow yàlla rek a bëgg Aysa nee na ku bëgg yàlla te muy dëgg ci yow bari loo koy tudd alquran ni bi zikrillahi tatma'innul qulub gaa yi ni bi zikrillahi tazdadu zunub ah cheikh tudd yàlla dafay tax nga am sécurité dafay tax nga am stabilité góor yàlla neen tudd yàlla day war day waral nga am bakkaar ndax waroo koo fàtte ba di ko fàttali ko waaw te zadu zunub ndax lu tax nga fàtte ko instant yi nga koy fàtte ci loo nekkoon Aïcha nee na ku bëgg yàlla na nga bari loo koy tudd ñi ni ko tudd yàlla gu bari ba njariñ la am yaa ngi dégg xaj daw góor mu ne résultat wu tudd yàlla yàlla daf lay tudd ci yërmandeem boo koy tudd daf lay tudd ci yërmandeem daf lay tudd ci njëggalam ëllëg mu tàbbal la aljanna yaag anbiyaau yi yaag awliyaau yaag te ne du ca yem yàlla muri xar kanamam nga xool ko ndax yaa doon tudd yàlla ci àddina yàlla nañ ko yàlla defal doomu aadama jëmmam lekk ak naan moo koy dundal waaye góor gi nee na xol li koy dundal mooy tudd yàlla zikrul ilahi tudd yàlla foo toll xuutun mooy dund bi للقلوب القلي ان لم تعش به وفكاني دندل و سخول تي تود يالا ييغل ني دونتلا ياغي دو خول بام فهي تموت خول با دينا بو يال كون نيت سو فكي ميغي دوند تا دو يالا خولم دينا لا غورو سالم سالم غا وخون رك ارالي خير قوتي في وقوتي سبوتي في بيوتي مع سكوتي ولم أرى فيك سيدي السيد رزقا ولا بالقول فضلا لا بسيتي وفي حب الرياسة شر دائم من الدواء في خمولي مع قنوتي كن لجنل يلا تخل لتدند وين يتود يلا ما كلمة لا إله إلا الله يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان فوف أنت برانتيس إمامي léeg-léeg xaj daa góor nga dégg ci jàkka wala juma ñu ni imaam nee na buñ jullee ba noppi nañ toog xaar am na kuy tuub doo koy dégg xam nga erreur la nañu xaar nañu xaar am na kuy tuub ndax ngeen bokk ci yiw wi waaye kiy tuub moom yéene woo ko ci yiw wi parce que boole woo ko ci dañ koy wax te duñ ko seetlu bu fekke ni imam yëg na ko avant muy julli na ko tuubal avant muy julli ko defey mu meuna bokku ci yiwi waye na gaa xaar yiwi tamam te ko ci bolé ki tax ngay xaar yiwi mom bokku ci parce que tuubagut parce que li nga wax léegi moy kalimatu la ilaha illa allah moy tax mu ne ko julit xam nga lelek mu ñëw dem sangu ji dem solu yére ñëw taxaw ñu ni imam ne bu ñu amna koy tuub bu ñi julli mu ànd ak ñu julli ñu pare tubal ko mu dem kenn du ni ko da nga wara julli fekk na julli ga mu ànd bokku ca ndax tuddagul baatu seede yi waxagul ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah kon li jaadu imam malik sunu sëriñ nee na su imam bi xutba bi su aljuma ci minbar bi ajaajal yaa ngi dégg am ku ni ko imam damay tuub na imam dagg xutba bi na ko dagg ah ñëw tuubal ko bu noppee continuer xutbaam li ñuy bañ mooy imam ne ko xaaral ba ma pare bu paree mën ko imam tuubatuma wurut imam Madun tup tuub mu ni ko mu ni ko banaa wala mu pare fek mu fatu yalla nti yalla kon bat yi tax nit nek nyewe bu nit ñewé ci jakka ji bëgg bëgg ci jaar nañu jaar ko ci baat yi ya mu tuddu ko ñu dogu julli waye nañu xaar ba julli ba nopi am na koy tup koku mom worul motax imam Imam xam nga dafa kraw xam nga sharia damay jangalé bu ko kenn laaj nak xam nga imam bi la jité war nga ni ko imam yow da ma imaam yow ku la jiite wala imaam dafay nekk rek moom di jiite te kenn du ko jiite war nga ni ko imaam man ci yow laay roy waa imaam yow ci koy roy xam nga dañ lay jàngal chartul imaami zakarun mukallafun aatin bil arkaani wa xukman na ci charti imaam yi tax mu jiite ci jàkka imaam nag bari na waaye imaamu jàkka laa na jiite bu fi xewet daganut na mat mukallaf na mëna indi ponk yépp waaye na am xam xam fiq bu mu mën defare julli gi bu julli gu yàqoo mu xam nu mu koy defare xaj Mansour li ma lay wax ku fàttaliku ci yéen julli imam Babacar Ndiaye yal na ko yàlla yiram keroog mu jëf mu jëfandikoo ji koy sang pire ci jumaay Seydil Hadji malik imam dafa julli xam nga jumaa ñaar rakka la waaye xutba ba ca la bokk moo tax xutba kenn du ko firi ci olof xew na ci réew mii nag kenn du ko firi ci olof pour mu leer bu fekkee da nga am beneen mazhab ñu ñëw mat ni maa ngi ñëw beneen mazhab bu bokkul ak imaamu Malik kooko yow la concerné yaa xam kooko la la tax nga di ko def yaa ko xam waaye su fekkee ci imaam Malik nga tënku imaam Malik d'accordut imam Malik nag du Seydil Xaaji Malik mooy imaamu daaril hijra ci wàllu sharia imaam Malik mooy sëriñu maam Seydil Xaaji Malik ci sharia Malik mooy sëriñu maam Serigne Touba ci sharia Malik mooy sëriñu Abdul Qadir Jilani ci sharia Malik mooy sëriñu Cheikhuna Ahmad Tijani kooku mooy imaamu Malik bi mu juddoo Mansour dañoo bind ci pooj bi Malik xujjatullahi fi ardihi xujja bu fekkee yàlla am na ku koy layal ci kaw suuf imam malik la lu mu wax noona la imam malik nekk na madinatul munawwara benn jigéen di sang di sang moroomum jigéenam mu génn àddina waaye bi muy sang ba ci kanam gi ngeen baal ma ba ci awra bi loxo ba tax fa kii sang ndaw si yëkkati yëkkati loxo ba ni fa teg coow li ne kur nañ dagg loxo bi boog kenn du xam li xew ni ne ëpp naa def nañ dagg awra bi rek waa ji di sol gant fu mu toll rek coow li ne kur ci madinatu munawara benn nit daal ni ginnaaw imam malik yeneen bi ne woon na malik moo ko fi nekkal ndax benn waaye bu ñuy wax abu lays ca madina daraan def su attee malik atte ñoom ñaar ñu wuute benn waay ju baax gént gis sayyiduna muhammad ni ko ginnaaw yow lañu yàlla booleel ndax yaa wax ni innama bu'istu boobu ñëw na waaye innama bu'istu mualliman yonent bi jàngalekat la woon ba noppi nekk ab sëriñ boole ci Haaj Mansour yonent bi nabi la mursal la cheikh la pour ma wax la ko nag bi muy dem la yóbbaale risaala gi ak nubuwa gi bàyyi figaraatu sëriñ gi képp ku toog nekk kilifa ci diine ji toog toogaayu Seydina Muhammad lam ca mënoon man nga ko te incha allahu taala moo tax ñu moytu kilifa yi bu baax a baax li mooy tuddee xam nga xam naa li may wax amul sens xam naa li may wax xam naa li may def xam naa fi may yem ñett yi benn valable ci ci yàlla boo nekkee ci yàlla xam nga lu valable Mansour xam liñ la wax loo boo xamee li ngay wax te kenn laaju la ko noppil kon xamal liñ la wax lo xamal liñ la def lo xamal fiñu lay yem lo wa ma minna illa lahu maqaamun maalum ndaw da fay yam dañu moytu bu bax xam nga yéen a may déggam den nak ma ngi wax li ma bëgg wax nak imam malik jërëjëf Cheikh Tidiane waa ji ni ko ni sayyidina muhammad Malik ni ak Abu Lays buñu atté dañuy wuté ci masala ma bëggoon nag ginnaaw yow lañu yàlla booleel yow sayyidina muhammad bu àtte amaté su wuté amé nga wax ma ci kan lay jàpp yeneen bi ni ko jàppal ci Malik mo donn sama xam-xam moy sama njitu keur te bu nee kër nag mooy àddina bi yëpp yonent bi adina bi yëpp keuram la mu ne ko malik mo donn sama xam-xam moy sama njitu keur bi lolu amé ñi ne kon nañ dem wax malik li xew ñu ni malik ndaw si kat da don sang motax sang kat da war a noppi ba agsi ci awra bi loxo ba fa tek légui nag problème bi moy lu ñuy def malik ni bala ngeen di set nu ngeen di def ndaw si wala ki dé wala ki dundu da ngeen di laaj ki doon sang bi mu agsee ba ci kanam kanamu ndaw si lan la xalaat mu ni dama bomb ba fii ma ni ay ndaw kanam gu yàgg njaaloo ñi ni ko kon danga xas gor xam naa sariya bu doon dox tey jii xoolal sariya xoolal Mansour xaste bi télévision bi xaste bi ci Facebook bi xaste bi nekk ci YouTube bi di xas koo xamante ni séqu la yow dara nga tiim ko di ko xas bu sariya doon dox tay man day tay nañu moytu bu bax nañu moytu réseaux sociaux yi nañu moytu whatsapp yi man day tay kenn ku ne yaangi wax lila neex te sayyidna Mohamed neena na doomu aadama yi la ëpp te la leen di tàbbal safara moy seen lamine li ëpp te safara bo demé ña fa nekk la leen fa yëbbu moy seen lamine yi xoolal Mansour alquran ñëw na law kunna nasmau aw naqilu ma kunna fi ashabis said nañu moytu bu bax malik ni laaj len ki don sang bi mu ak sefi lu mu xalat mu wax ko limu wax mu ni ko kon da nga xass gor ta sharia bo xasse gor dañ lay duma jurom ñet fukki ya imam malik Cheikh faqlu yar ni do malik di wàññi ni do malik di compter ni do malik di compter ba yar yar di mat 80 di mat loxo bani tegget wa Madina yeb nak d'accord ni xam ngeen lu xew ñu ne ah Ibrahim xam ngeen lu xew ñu ne ah ñu ne la yufta wa malikun fil madinati bu fi kenn atteti benn ala sharia fi yëg Malik mi ci Madina at ba noppi imam Malik moomu nag ñii ma la wax bu dee Cheikh El Hadj Malik Malik mooy sëriñam bu dee mam Serigne Touba Malik mooy sëriñam Afrique sunu mag yi diina yëpp ba ci Cheikhuna Ahmed Tidiane imam Malik mooy sëriñam Malik moomu nee na. xutba juma kenn du ko jàng ci wolof xutba juma kenn du ko jàng ci français xutba juma kenn du ko jàng ci anglais li ñu bëgg mooy dañuy jël xutba bi jox ko nit balaa imaam a ñëw moo fi di xutba bi bu ñu paree imaam bu ñëwee parce que ñaari xutba yi dafay taxaw taxawaayu ñaar rakkaay yi parce que tisbaar cosaanam mooy quatre rakka ba pare ngay def deux lu tax defoo benn xutba def deux xutba kon deux yi moo lay xamal ne deux yi moo remplacé deux rakka yi te julli kenn du ci wax booy julli boo waxee tarey ko julli nga yàqu na te xutba yi ci julli gi la bokk kenn waru cee wax bay daw góor yàlla mi bind jaam ñi moo bind séeréer am de yàllaa fi indi wolof yàllaa fi indi njaago yàllaa fi indi tukulóor yàllaa fi indi pël indi fi sara xule indi fi français bi indi fi anglais bi bu ko neexoon alquran ji mu bind benn sumun olof benn sumun séeréer benn sumun tukulóor benn sumun français waaye yàlla wàcce ko bi arabiyyin mu biinin kon kay taxaw naan nit ñi xamuñu li ñuy wax yàlla mi bind doomu aadama yi moo la ko moo la gën a xamuñu ko ba noppi alquran ji mu wàcce ko ci làmmiñu arab imam malik nee na dëkk bi ñu dëkk bu ñu amee juma te kenn dëkku fi arab juma wàcc na leen keneen ku koy def nag mazhab boo tënku kooku yàq kooka la waaye malik moom lii la wax wala leerul ay wañu dem mag ñëpp di tënku loolu la mag ñi tënku su ko defee Aïcha nee na képp ku bëgg sëy ku bëgg yàlla da ngay bari loo koy tudd sa tudd yàlla su baree yàlla tudd la ci yërmandeem Sidi Cheikh Tidiane yàlla tudd la ci njëggalam yàlla dugal la aljanna insha allahu taala te kat àjjana jar boo demee doo ca wéet anbiya yu nga koy bokkal awliyaullahi yàlla muri kanamam nga xool ko ndax yaa ko bokkoon ci àddina Aïcha waxaat na ba tey ni képp ku bëgg Seydina Muhammad am na fi ah سيدتنا عائشة نانا كو بغ يننتبي صلى الله عليه وسلم نغا باري لوي جولي تي موم ريزلتابا و فكي باري nga لوي جولي تي سيدنا محمد وصبرته ريزلتا بحج منصور مودي الوصول الى شفاعته وصحبته في الجنه ان شاء الله تعالى ها تبارك الله يننتبي كندوم nee na boo baril Adja Diallo soo baree looy julli ci Seydina Mohamed julli gi mooy dem ba dañ lay pointé ni Dial Mbaye mu Moussa Ale Mbaye ëllëg ni Seydina Mohamed di ramu ci lay bokk te yemu ca yemu ca yemu ca yeneen bi nee na ëllëg maag yow mbagg ak mbagg ba aljanna incha allahu taala ah ca ngay bokk Dial incha allah yal na yàlla def ko xam nga lu tax yeneen bi nee sallallahu alayhi wa sallam من احب سنتي فا يننتي بنينا من احب سنتي كو بغ سما سنه فقط احبني من غا بغ تا احبني كيب كوما بغ من رسول الله كان معي في الجنه تاني يوم فوفو نيان ni le bakatrina